asalaamaaleykum sama mbokk téléspectatrice sama mbokk téléspectatrice yi ak sama mbokk internet yi waaw tey yéen wut seen biir émission téerey sëy seen chaîne bi nga xam ne koy naan MIK TV téerey sëy nag boo déggee téerey sëy ëmb na lu ne waaye tey dañoo ñëw ci wax di waxtaanee entre copine ak copain ñu ko gën a xamee ci ñaar ñu coow copain ak copine bëri na am na wàll bu nekk ndax am na ñoo xam ne ñu ngi nekk ak nit par intérêt am na it ñu ngi nekk ak nit ñoo xam ne te yàlla rek rek moo tax xooluñu li nga am xooluñu li nga ñàkk am na it ñi nga xam ne alal lañuy toppee nit te alal boobu noonu bu ñu dee xool bu ñu dee dem ba au fond ba au fond alal boobu après dina leen indil loo xam ne musiba lay doon ak loraange nit di topp nit te yàlla rek tax. loolu nga toppee ñu te yàlla rek tax suñu borom dala ciy fekk si ndax dañ naan kat loo loo fa loo fa toogul loo fa toogul doog fa loo fa loo toogul du la fa xaar yow yaa fay def loo xam ni lii da lay xaar ndax nit di nga nekk nit mu toppee la intérêt intérêt bi day fekk day nekk ci ku góor ki intérêt bi day nekk ci ku jigéen ki ndax ku jigéen ki mu ngi toppee kooku alal ku góor ki mu ngi toppee ku jigéen ki li nga xam ni doyewu la benn benn passe-temps la lay doye dangay ñëw mu def la lim lay def bu paree jox la li def yow nga yaakaar ni yow mii yaa nekk nga gis ki nga xam ne day nekk ak yàlla rek tax toog fa xaar ko fa bis ñëw ñu yàlla ñu daganal sëy boobu sëy boobu am mais yow mi nga xam ne passe-temps lañ la jàppee woon ana sa avenir ana sa àdduna ana lan ngay wax say waajur ana gàcce gàcce nga gàcce bi nga xam ne say waajur gàcce boo xam ne xamuñu fuñ koy waxee du mën a say waajoo rek say fam sa famille laay wax ndax ki toogoon te yàlla rek tax ah moom de waajuram kontaan ci moom dégg na ci moom ndax moom kat kenn du fekk waajuram fi mu toog waajuram yor boppam déedéet fi mu fekk waajuram boppam ca kaw waaye yow mi nga xam ne teg nga say waajur gàcce loolu ñu naan ana lan laay wax waa ana lan laay wax waa koñ ba ana yow lan ngay wax sa waajur ndax yaa ngi xëy di dem sa waajur yaakaar ni yow mi kat. yaa ngi nekk ci la nga xam ne xalaatul sax yow lan ngay defi te fekk na yow yaa ngi nekk yaa ngi nekk ci nga xam ne ci li la neex la ak kat ak lan ci li neex li ki nga nekkaat te xale yu góoru tey yii takkakuñu ki nga xam ne dafay taxawaal soxla nañ ka nga xam ne dañ koo fekk ci peggu yaayam soxla nañ ka nga dafa fees dell ndax kat ma xamal leen tey benn benn mbir tey gis nga buñ la jëlee tamit yóbbu la seen biir kër. nga ne leen lan damaa fees dell te fekk ci yow nan la leen ni tey bu ñu takk samedi bu ñu ñëwee yow fekk ci ñu yow dara fekkee xale bu góor bi nga xam ne amul sutura na leen bu ñu la takkee samedi dimanche di nga xëy fanaani seen am na nag nga xam ne dañoo am sutura bu ñu yi dara ni dañ naan carrément fekk nañ ci yow dara te fekk na araam waaye ñu ngi lay suturaal waaye na la sutura boobu du continuer ndax bis dina ñëw yéen ñaar liggéen ngeen jote sutura boobu dana xaweeku waaye ka nga xam ne dañoo fekk mu fees bi nga ko fekk mu fees dell kooku lu ñu jote jote jote jote ku góor ki du mës am dëgg ci ndax kat dina ko nekk carrément la nekkoon ci man yow yaa ko ku góor ki duñu ko mukk dama laa fekk ni jëm si rek dama laa fekk nga set wecc ma def ta yàlla tax déedéet dina ko jaaree beneen kàddu dina ko jaaree feneen waaye du ko jaaree mukk ca la nga xam ne ñoom ñaar seq nañ ko kon nag yéen samay mbokk xale jigéen yéen samay mbokk jigéen lii kat laa leen indi li muy seen système musu ngir yàlla te yàlla rek tax téye leen seen bopp xam leen seen valeur xam leen seen gëdd xam leen yéen ay ñan ndax sama yaay daan wax naan nënd suba teel dara dàq ko ci jigéen kon ngal nañu xaar nënd suba teel ndax nënd suba teel neex na de way la bi nga xam ne way woo xam ne dootul fay abadan daay ma te ne la lenn duñ ko fekkul ci dina dem ba fekk ba say njaboot ndax kat doomu ki nga xam ne njaalookat bi la am na lu ko gën fuuf dal la yéen samay mbokk jigéen fonk leen seen bopp xam leen seen valeur xam leen yéen ay kan xam leen fi ngeen teg seen tànk ndax xale góoru tey yi dañuy ñëw utiliser la ba pare dem seen yoon def lu ñuy def ci yoon ba pare dem seen yoon kon nag balaa ñoo def ci yow bu nga xamee ni kii woo na kat téléphone wala woo na kat indi ma biir këram ndax lañ naa lu ne ca commencement ba la ndax yow loo bàyyi ca commencement ba bu dem ca feeba doo ko tere ndax kat yow yaa ko ko tàmmal yow yaa ko ko may yow yaa ko may bunt bi nga xam ne dugg na la ak bunt bi nga xam ne yeb na la may nga ko bunt boo xam ne yoon la rek danaan sama ah allo diw foo nekk nga ne ko maa ngi nii mu ne la kaay gaale nga ñëw mu def lumière ci yow ba pare dem yoon yow au lieu que nga dem nag toog ak moom sa yaa yaay yaakaar ni kii dafa jaay di woon sa yaa yaakaar ni kii dafa demoon seeti copine am te fekk na yow dem nga def li ngay def ba pare ñu ne pat ak moom li meer ba waxoon nee ñu def la ko nga jëlee ci ëmb moo gën fuuf ñu jël ñu def la li nga xam ni fekk ñu ci yow dara ndax kat boo ci jëlee ëmb di nga am loo xam ne lii dañ naan lii dalal na ko ci lii la ci am waaye nit ñi toog di la xaar ñu def ci yow ay alal sa yaay xool li mu mën ak li mu mënul say mbokk dimbali ko jàppale ko sa yaay defalal way ndax nee nañ kat xew mu rëy way la ndax ay xewu diw ba ak a neex waaye nag ay diw nënd suba teel la loolu dara daax ko sama mbokki jigéen ñi tey kat seen système su lii la leen indiloon ci seen chaîne MIG TV dañ leen naan ngeen daw abonné ñu ngi leen di jaajëfal bu baax.